salaamaaleykum sama gars yi maa ngi leen di ziar bu baax leen bëggee ma ñëw wax leen nag ci Anita TV bi ngeen ni wax fan yii yëpp Anita TV ngeen ni capitaine Touré da leen porté plainte ak euh, am na keneen aussi ku leen porté plainte je pense El Malick le ministre El Malick porté na leen plainte ñu ngi ciy wax naan euh, Anita TV Anita TV bu leen ko daaw ci waxtu wi dëkk bi. jaxasoo woon na torop te metti woon na ci période bi léegi ñu ngi ci le 26 euh, si je me trompe pas juillet 2024 ñu xalaat daaw ci heure bi ci ban situation la Pastef nekkoon ak ren ci ban situation la nekk ci Anita TV lay ñëw Anita TV bu ngeen bëggee xam kan moo ko moom man Zey maay wax ak yéen nag te lu ma leen jox suivre leen ko xool bu leen sori di seeti gauche droite wala di wër keneen question nag laa wax question woo leen le général Moussa Fall ngeen laaj ko Anita TV kan moo ko moom ak kuy Anita TV le général Moussa Fall woo leen ko ngeen laaj ko ko te ngeen woo commissaire Ali Kanté bi nekk cybercriminalité ngeen laaj ko kuy Anita TV qui est cette personne mooy kan entreprise israélien bi nga xamante ni ñaari frère Perez yi ñoo ko gérer booy xool Eden Perez ak euh, Gabi Perez seen entreprise bi tudd Massim bu ngeen demee Google mën ngeen ko gis laaj leen général Moussa Fall ak le commissaire Alicante bi nekk cybercriminalité kan mooy Anita TV jarul discussion wër gauche droite ak kan la du kan c'est facile nguur gi bu bëggoon xam tey tey tey niw ma la 24 heures tax dafa bëri une heure deux minutes question réponse ñu génne leen Anita TV ni leen mi ngi nii on avance le 16 décembre 2022 ba ñuy wër euh, Didier Badji ak Fulbert Samb danoo dafa dem dafa dem dafa dem da ngeen di poser question déglu leen ma bu baax posé leen question colonel Mbaye Guèye colonel Mbaye Guèye bi nga xamante ni moo doon commandité zone militaire numéro moo doon patron de la grande muette Dakar le région moo doon la grande muette dans la région de Dakar depuis septembre deux mille vingt et ñee ñi ngi des disparaître le 16 décembre 2022 moom depuis septembre 2021 mooy commandité légion la grande muette dans la région de Dakar te ñee ñi ngi disparaître Dakar décembre woo leen colonel mbay Guèye ngeen laaj ko Fulbert Samb di jabat ji te ngeen laajte ana colonel mbay gi actuellement fan la ne léegi lan la ndax ma nga fa ba léegi wala dañ kaa yóbbu feneen wala wala wala ay question la rek la posé samay gaalan nag homme de tenu yi maa ngi ñëw ci yéen maa ngi wër dakaar bi yëpp ak Thiès maa ngi wër di xool rond-point yi di xool terre bi BRT di wër di xool di xool Colobane partout maa ngi fay jaar je les vois tous ci mbedd yi man ñoom rek laay lijjanti seen mode de vie laa bëgg mu changer ñu dem ba dootuñu fa taxaw seen bureau la ñuy toog di di gis li ci mbedd mi yëpp lu xew ñu intervenir demaat toogaat duñ taxaw jaay mbedd maa ngi ñëw ci ñoom mais tey dama bëggoon ñëw rek wax leen ci Anita TV bi ak Fulbert Samb di jébat jarul des fois discussion beeg coow li day bëri trop jarul muy bëri dem leen ngeen poser question ñooñu coow li jeex laaj leen question interrogation rek question la ci kanam 12 émission bi ma def euh, RDV ci entreprise sénégalaise yi dina daw man ngeen ko jàpp ci YouTube bi tàppe RDV rek bu ngeen tàppe RDV rek euh, tey émission tey bi di ngeen ko am yéen ñëpp incha allah wax naa fa am solo pour sunu mbokk sénégalais yi ne ci entreprise yi ñu leen di sonal wasalaam gars yi